waaw ayca ba tey ñu woyee seen émission Kumpa Tabaski bi ñëwoon fii nga xamante ni mooy Rue 31 ñu fekk fi berger Bamba Fall sunu grand nekk fi sunu xarit sunu am di jàmm waaw wax dëgg yàlla ko baax la sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay grand. tur bi nan la. Euh, Pape Momar Diagne. waaw Pape Momar Diagne moo nekk fii Pape Momar ñu bëggoon xam lan moo andi berger Bamba Fall. ba Bamba Fall bi mun naa ne c'est bi mooy deuxième édition bi quoi. te plus euh, daaw defoon naa ko ren ma defaat ko quoi. te plus tamit moom mu doon frère si doon tamit xam nga kat daal mais daal lépp lu ko woon daal mun naa ne frère la quoi. kooku mooy nekk ngeen li mu wax leen na nañ ñu bëggoon xam nan ngay waajee tabaski bi. ah tabaski bi comme comme ni ko ñëpp di ko la tamit en plus tamit ma xam ne xam nga digam digleeb suñu borom la comme ni ko ñëpp di waajee la noonu laa koy waajee. léegi xar yi euh, mun naa ne comme euh, ni ma ko waxee woon la noonu laa koy waxaatee quoi comme ni ma ko defee woon daaw dafa tombeek man émigré laa quoi moodu moodu laa Covid bi boobu tey maa ngi fi toog. te lii dama ko samp benn point de vente pour dimbali si néew gi doole gi quoi waaw pour dimbali non non non non non du du xaalis du doon xaalis damay dem xooli ji leneen mais lii dama ko def leen uniquement pour dimbali si néew gi doole gi quoi parce que dimbali bu ne am na fi quoi parce sooy xool sax pratiquement yéen li ngeen fi fekk nii sax fekk na ne xar yi dem quoi mais gënoon na bëri lii quoi gënoon na bëri lii quoi prix bi gën a néew. néew mun naa su ñëwee xaru 100000 ba xaru lu mu bëgg leen am na fi quoi si. ba 100000 daal dina am xar. 100000 li nga am xar bien sûr. waaw si parce que tamit xam nga su dul dara tamit ñun fi lañ dëkk juddoo fi yaroo fi màggee fi lii nii social quoi lañ def quoi lii pour social quoi. macha si. léegi ñi nga dañoo nekk extérieur bëgg a yónnee pour seen frères yi jënd si xar beeg yooyu noonu nu ñuy def. waaw mais c'est dafa doon loo xamante ne sax man pratiquement kon am na samay xarit ak samay am di jàmm yu bëri yoo xam ne pratiquement ñoom laa jaay lii yëpp ah c'est ñoom laa ko jaay ko ah. waaw si parce que pratiquement sooy xool man man xam nga maa ngi fii quoi waaw maa ngi fii quoi ku fi ñëw la dina ma fekk waaye soo fekkul dina ma fekk sama frère quoi. ayca kooku moo ne woon Pape Omar Diagne dégg ngeen lu mu wax leeral na lépp wax na li nga xamante ne ni moo fi ne macha allah yombul nag émigré bàyyi léppam ñëw fii di jàppale ñi nga xamante ne ñooy néew di doole yi nekk si réew mi wax dëgg yàlla xam nañ dëkk bi dafa métti waaye li may wax rek kumpa tabaski bi lépp day génn lépp lépp lépp waaw fi ne nii moom xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak sa dernier kàddu waaw si comme sama dernier kàddu la comme ni nga may expliqué sànq yaa ak lii ak lii moom comme ni ma la koy wax la dama ko samp ak sama propre moyen quoi xaaruma si ma sàmba xaaruma si ma demba quoi mais dama ko def comme ni ma la ko waxee yoon rek pour dimbali néew gi doole gi moo tax ma samp lii defuma sax benn pas sax dem si Bamba Fall naan ko nii ak nii ak nii ak nii. kon su ma la déggee kon moom yëgu ko yëgul ne dama samp lii daaw sampoon naa ko te yëgu ko ren tamit ma sampaat ko parce que début bi nee naa la frère la billaay wallaay frère la quoi moom financé wul deful dara li sama propre moyen la. comprendre nga expliqué te balaa mu doon gën a mën a neex sax fi ma doon gën a ma samp ko ba mu bañ ma amaana seetu ma si dara su fi jàllul sax xam nga euh, troisième édition bi si jotee su ma fi fekkaatee su ma fi ñëwaatee incha allahu rabi da ngeen fi fekkaat pour ma samp lii tamit moom moo fi ne incha allahu rabi ah xanaa di leen gërëm yéen waa Medina TV ni quoi di leen gërëm di leen sant quoi yéen ñu def déplacement ñëw fekk ma fii ñëw xam nga def lii moom dama koy rafetlu quoi di ñaan yàlla tamit site bi tamit mu doon site boo xamante tamit xam nga mu gën si site yi quoi loolu laay ni ñaanal quoi loolu laay ñaan quoi ayca jërëjëf jërëjëf kookoy yi leer na donc ñu def lu dul woyal rek seeti yeneen jaaykatu xar yi baa ñu seeti jaaykatu bisi yi baa ñu seeti cosmétique yi baa seeti borom salon de coiffure yi duñ bàyyi kenn waaw kumpa tabaski moom lépp lépp dina génne incha allah ànd seeg sama mawti caméraman bi da ngay ñëw ñu daal di doxal seeti ñeneen ñi nga xam ne ñoo si des ay ca jaajëf